min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala ñoo ngi yëkkati sunu kàddu di sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant cheikhul xadim te di feddali sunu pas-pas ci cheikhul muntaqa di ko ñaanal yàlla sunu borom gën ko yàggal te wéral ko ak mbooleem kilifa gu nekk ci yoonu murit waaye rawatina mbooleem kilifa gu nekk ci réew mi ci fu mu fi nekkee di yëkkatu kàddu yu nuyoo kàddu sant yoo xam ne ñu ngi koy yëkkati ci tuuru coalition Benno Bokk Yaakaar bi nekk ci département de Mbacké te yàlla suñu boroom dogaloon bi ñuy tànn liste bi ñu jël ñu jiitaloon ci ñu ànd ko ak ay mbokk ak i xarit ak i am di jàmm ñu am ci lu ñu duggoon mooy ay élection ba génn ko war daje ak nit ñi waxtaan ak ñoom joxe ay cant joxe ay ngërëm waaye dolli ci ay kàddu yu ñu ci mën a dolli rek ngir gën a mën a mottali suñu cant bi ci jiitu mooy kilifa gi nga xam ne moo jiite benn Benno Bokk Yaakaar muy son excellence président bi Macky Sall ñu ngi xamal képp koo xamante ni kii yaa ngi woon ci département de Mbacké bokkoon ci coalition benn Bokk Yaakaar mu ngi leen di sant santu boppam mu ngi leen di gërëm ngërëmal boppam ci taxawaay yi nga xamante ni war na kuy wut dara mu war koo taxawee kenn ku ci nekk lala ci waroon muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon yëg na ca lam ca yëg xam na ko te àndoon na ak yéene ak pas-pas woo na ma waxoon ma ne naa ko jottali ñëpp ñu yëg ko kenn ku nekkoon ci coalition bi ak foo ci nekkoon góor ak jigéen mag ak ndaw nga xam ne président sant na la gërëm na la ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni bi doon nañ ko bokk di taxawul coalition bi fii ci département de Mbacké te niñ koy waxee bu ñu ci limee sama tur man mi toog di wax lim ci Serigne Cheikh Bara Gueye lim ci Mouhamed Cissé lim ci soxna Mariama Diallo madame Ndiaye lim ci soxna Rokhaya Diouf ñëw ci liste ñooñu ñoo nekkoon ci liste départementale bi ñëw ci liste national bi lim ci Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma ak Makhtar Diop ci seen tur ak turu coalition bi yëpp te mën ci tuddaale suppléants yi ak suppléantes yi monsieur le maire Mbaye Tine mi ngi fi teew yóbbaale leen ñoom ñëpp ak ci tuuru président wu zone yi nga xamante ni ñooy ay responsable yi nga xam ne ñoo yore appareil politique bu Benno Bokk Yaakaar ak alliés yi ci biir Touba rawatina département bi bu ñu ci limee zone yi tàmbalee ko ci zone bi jiitu muy zone 1 mën nañ ci lim Makhtar Diop lim moo nekk zone 1 zone 2 Moustapha Seck Mam Awa Maawa zone 3 Mor Lo zone 4 Alla Silla zone 5 Bassirou Diagne zone 6 Mor Gueye zone 7 Abdoulahat Seck Sadaga zone 8 Bassirou Ñoom Moustapha Seck Janatu zone 9 Moustapha Diallo zone 10 Serigne Abo Niang zone 11 ak ali yi nga xamante ni ñu ngi woon ci liggéey bi te bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci benn pàcc bi buñ ci mënee lim Mohamed Cissé ci wet gi mu féete woon zone lañ ko doon jàppee buñu ñu ci limee Mafari Ndiaye zone la bu ci limee parti allié yi mën nañ ne buñ ci tuddee tudd Bachirou Gueye ñëpp ñu ngi ci biir kon <clears throat> gannaaw bi ñu duggee ci liggéey bi nga xamante ni nekkoon nañ ci euh, ñu ngi yëkkati kàddu ci turu ñooñu nga xamante ni ak bépp responsable boo xamante ni bii yaa ngi ci biir dëkk bi mais rawatina yaa ngi ci département bi te bu ñu ko waxee mën nañ ci dugalaale monsieur le maire Gallo Ba ak benn bépp responsable boo xamante ni bii dëkk nga Mbàkke wala ñu dugal ci turu Serigne Moustapha Mbàkke mi nga xamante ni. moo yore communes yi nga xamante ni ñoo nekk ci département bi bu ñu ko limee limaale nañ quatorze communes yëpp kon ñi ngi sant mbokk yi militants yi ak militantes yi góor ak jigéen mag ak ndaw ak fépp foo xamante ni fii fu ñu nekk ci biir dëkk bi la di leen sant te di leen gërëm bu ñuy yëkkati kàddu yooyu nag di leen sant mën nañ cee citer taxawaayu ñi nga xamante ni ay responsable lañ te nekk ci biir parti bi rawatina parti allié yi te bu ñu jiitalee monsieur le maire Abdou Lahad Ka mi ngi ci biir Serigne Modou Mbacké Bara Dolly mi ngi ci biir ak ñeneen ñi mel ne moom ndax ku ci nekk la nga doon jëngu weesuwul lu may coalition Benno Bokk Yaakaar ndam dugg nañ nag ci ay élection yoo xamante ni kenn ku ci nekk la nga ca mën def nga ko guddi ak bëccëg suba ak ngoon waaye nag nit ñi dañuy war a bay a di fàttaliku bàyyi xel ne yàlla suñu borom li ñu waroon mooy ay jaam lañ te yàlla dafa bëgg jaam bu koy ñaan ci biir ñaan gi jàpp naa ne kilifa yi fuñ fi mën a nekk li war ci ñaanal seen njaboot ñaanal jaamu bi yàlla buy wuti loo xamante ni daf koy sabablu ji seen jaan wàcc na suñu diggante ak ñoom ndax la leen ci waroon lépp def nañu ko waaye nit it nag li muy wut. jàpp naa ne lu mu amul la tax mu koy wuti ñàkk koo yor téye ko suñu loxo moo tax ñu ko doon wutali coalition Benno Bokk Yaakaar bi yàlla dogalee ñu koy wuti képp koo xamante ni kii tënku nga ci xam ne danga ko waroon a wuti nga wuti ko lu la ci dikkal war ngaa xam ni lii mooy li neex yàlla suñu borom te li ko neex mooy coalition Benno Bokk Yaakaar wuti élection yi am ci liñ ci mën a am ci dagaan baati askan wi lañ ci mën a am mënuñu koo weesu loolu lañ mën a am ñu ci sant yàlla suñu borom tabaraka wa boo tënkoo ci ayab alquran bi ñu naan wa asa an takroona cheyan woo xayrun lakum euh, dafay firnde leen rek ab jaam sabab lu la mën di wut nit ki nag li ngay wut di ko ñaan danga jóg ne dama bëgg lii maa ngi ñaan yàlla suñu borom mu jox ñu ko waaye lii ngay ñaan suñu borom du damaa ñaan jotuma ci tax ne ñaan nga nanguwul waa asa an bu shay'an wa huwa sharrun lakum loolu boo demee ci surtu baqara aaya 215 ma nga ca boo ko gëstoo xam ne foofu li muy tegtale ak li muy joxoñ rek mooy jàmm bi cërub sabablu la am waaye lii may sabablu fii laa ko bëggee fii laa koy amee loolu ci sunu borom rek laaju kon bi sabablu waree sabablu nañ te lii taxa war a mën a sabablu amul kenn koo xamante ni yaa ngi woon ci biir coalition bi te xëyoo woon ci loolu walla nga gont ci ndax weesuwul nekk ci pré-campagne kenn ku ci nekk fa nga ko war a doxee dox nga ko fa ca nam la waree biñ duggee ci campagne bi kenn ku ci nekk la la ca war def nga ko li warit coalition bi nga xamante nii moo war a jógee ci base ci directoire coalition bi ñëw ci responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi rawatina biir Touba ak département bi ak commune yi ñu naan ko ay fonds di ay moyens bi yàlla dogalee ñu dugg ci campagne bi li njëkk a jóg jëm si ci ay fonds ci dëkk bi yàlla dogal na ci sama loxo man mii la jaar bi moo ci accès it ñëw naa ba indi ko Touba woo ñi nga xamante ni ñooy responsable yi nga xamante ni fañ ko jëlee lañ ñu wax ne nañ ko ci def ñu defe ko noonu mooy ñëw Touba. dajale ki nga xamante ni mooy ma jokkoo ci ak Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma jokkoo ci ak yenn responsable yi ñu dajale zone yi jiital leen lim ba ñu waxoon ne moom la ñuy yëkkati jox ko zone yi ci première tranche bi jàpp naa ni Serigne Mor mi ngi ni toog ci suma wet képp kuy président zone toog nga ci suma kanam ci kanamu yi bi ak kanamu responsable ya ko fekkee ak ay bokk ndax lu ñëpp bokk la ñu yëkkati la nga ca war a am ca première tranche ba jox la ko nga def benn décharge ñu téye kayit ya ci noonu lañ ko doxee ci zone yi nekk Touba muy fukki zone ak ñeent lañ ko séddale bi ñu ci noppee woo nañ communes yi woo nañ président Serigne Moustapha Mbacké ndax monsieur le maire Mbaye Tine moo nekkoon interlocuteur man bi ma tànnaloon sama bopp mu dox suma diggante ak ñoom mu convoqué nit ñu ñëw toog ci kanamu responsable yi mooy comité électoral Touba. ci njiital Serigne Abdou Lahad Seck saa dàggam fekke woon na bi ñuy jox zone yi bi ñu ñëwaatee it war a séddale communes yi seen première tranche jàpp naa ne ñun ñëpp ñoo toogaat tëju ci benn barab fukki commune yi ak ñeent kenn ku ci nekk maire ba ñëwal boppam taxaw ñu jox ko li nga xamante ni mooy li ñu leen war a séddale ci première tranche kenn ku ci nekk ñu jox la ko nga jël kayit ñu bindal la benn rosi nga émargé ma denc ko bi ñu nekkee loolu di ko doxal ci biir campagne bi am na nag yeneen mbokk di ay xarit di am di jàmm yoo xamante ni ay nitu président de lañ ay nitu nit ñi nekk ci biir dëkk bi lañ ñëw nañ fi jàpp naa ne taxawal ay jàppale yoo xamante ni dafa jëm si ci kuy jàppale président mais kuy jàppale coalition Benno Benno Bokk Yaakaar jàpp naa ne ñëw nañ fi nañ tudd seen indi ay jàppale yoo xamante ni ci zone yi la jëm lu ci nekkit ba mu ñëwee ni ñu defoon ci tranche bi njëkkoon a ñëw noon lañ ko doxalee jàpp naa ne bi njëkk bi njëkk a ñëw te bokk ci loolu ci loxo yi ku naan As Jaxate la jaar mu dem ci àll mi nga xam ne mooy trésorier wu parti bi toog fa ak morloo ñoom ñi ak responsable ya ko fekke ñu séddale zone yi li nga xamante ni mooy appui bi njëkk a ñëw te jóge ci kuy jàppale coalition bi jàpp naa ne loolu noonu ngeen ko doxalee dara ump ma ci lépp leer te loolu mi ngi jóge ci ku ñu naan njeñ faal noonu la doxe bi ñu demee ba ca kanamit am na yeneen ay nit yoo xamante ni jëlaat nañ seen alal indi ko di ko jàppale coalition bi mën nañ ci tudd monsieur le maire Abdou Lahad Ka moom tam yoon woowee la jaar ba mu ñëwee dem nañ ci àll si la ak ñamu yónni teg ko ci loxo Abdou Lahad Seck saa dàgga ñu sëddale zone yi li nga xamante ni la yëkkati woon ci ay moyens ngir jàppale leen ko jàpp naa ne lu ci nekkit noonu lañ ko doxee bi ñu demee ba ca ay fanaat Serigne Fallou Mbacké transitaire ñëwaat na fi moom tam indi fi mën-mënam ci li mu am jàppale ko zone yi ngir jàppalee ko coalition Benno Benno Bokk Yaakaar moom it noonee la doxee bi ñu demee ba amaat ay fanit Serigne Cheikh Mbacké solution moom Serigne Moustapha Massamba moom it defaat na noonu ñëw na fi indi la mu am te mën koo jàppalee zone yi jàppale ko coalition Benno Bokk Yaakaar ñu woowaat leen président zone yi ku nekk ñu teg ko ci sa loxo bi ñu nekkee ci campagne bi bari na am na ay ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ay kilifa lañu te seq ko ak kilifa gi nga xamante ni moom la ñuy jàppale muy son excellence président république mais seq ko coalition Benno Bokk Yaakaar taxawaay yoo xamante ni war na kuy jàppale ku jëm ci foo xamante ni yitte woon na ku ko jàppale lu ci ñëw it noonu dong lañ ko doxalee jàpp naa ne àgg na ci fi nga xamante ni mooy président zone yi ñu ngi ni toog ndax lu ci mos ñëw dañ leen di woo wala lu jëm ci ñoom it bu ñu ko yëgee ne leen nañ ko doxalee ci ni nga xamante ni ni la waree. bi ñu demee ba campagne bi toll ci juróomi fan war a toll ci war a mat wootewaat nañ Ndakaaru yónnee li nga xamante ni mooy deuxième tranche fonds yi nga xamante ni moom la ñu war a liggéeyee yeggalee ko campagne bi. bi mu ñëwee nañu defoon ci bu njëkk ba rek yàlla dogal na loolu la ñu defaat dañu woo Abdou Lahad Seck saa dàgg ci bi ma jokkoo ak Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma ba pare ñu woo Abdou Lahad Seck saa dàgg bi nga xamante ni mooy jiite comité électoral bi woo Alla Sylla mi nga xam mooy trésorier bi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk zone yi ñu ñëw toog fii ñoom tam nekkaat fukk ak benn ak ñett yi ci topp ñaar yi ñett yi kon muy fukk ak ñeent kenn ku ci nekk lañ fi indi woon ci ay fonds jox la ko ca bu njëkk ba ñu wàññeewaat ko noonu ci kanamu ñëpp jox la ko ci ñaareel bi kenn ku ci nekk def décharge mi ngi ñu téye kon jàpp naa ne bu dee ay fonds jóge na ndakaaru ci bopp parti bi jëm si woon ci département de Mbacké te jaaroon ci sama ay loxo man mii nekkoon te liste bi ñaari yoon la nañu ko fa jële woon ak fañ waxoon ne nañ ko fa dugal noonu lañ ko def ci zone yi noonu lañ ko def ci commune yitam lu ci nekkit mbooloo ma ko séq muy fukk yi ak ñeent ci ay zone kenn ku ci nekk yaa dikkal sa bopp ñu wàññi jox la nga signé këyit bàyyi fi dem noonu it lañ ko defee ci première tranche bi ne lañ ko defee ci deuxième tranche bi noonu it lañ ko defee ci comme ni ma ko ko ci zone yi mais noonu aussi lañ ko defee ci maire yi kon jàpp naa ne bu dee mbirum fond buy jógee feneen di ñëw noonu lañ ko doxalee ba jàpp naa ne lu ci nekkit mi ngi ci ay këyit lu ci nekkit jàpp naa ne ñi ko war a yëg te nekk responsable yi nga xam ne nag ñoom ñoo war a jóge ci bopp comité bi dem leeral wala dem liggéey ak ñi nekk ci base bi muy militants yi ak militantes yi loola président ba ca moom lay tàmbalee jëm ca ñoom mais li aju woon ci comité électoral bi war a dem ci président bi wala wala dem ci maire bi yàlla dimbali nañu ci ba lépp loo xamante ni moo ci waroon a nekk pàcc bu njëkk ñëw na dem na ci ñoom ku ci nekkit ba nga ko jëlee bàyyi nga fi këyit wu wane ne jël nga nangam yóbbu nga ko ci bu njëkk bi ak bu mujj bi jàpp naa ne bu dee ci mbirum fonds yi noonu lañ ci doxee mbirum liggéey bi tam li may wax rek kenn ku ci nekk yëkkati nga sa mën-mën def ci loo mën ak loo mënul ngir doon sàkku yàlla suñu borom defal ñu ndam nii nag xëy na mooy li nga xamante ni mooy dogalu suñu borom ñu nangu ko nag assumer ko ndax yàlla kat lépp loo xamante ni dogal na ko mooy li gën ñi yàlla dogalit ñu jiitu jël liñ naan ndam li wala jël liñ naan seeni liste jàll suñu liste jàllut mën nañ cee citer Serigne Cheikh Abdou bu Serigne Bara Doli lim ci Serigne Cheikh Thioro ñuy sunu ay rakk ñu ngi leen di féliciter ak ñi ñu bokkal nekk ci liste yooyu mais aussi di leen encourager ci fi ñu toll ak fi ñu jëm ëllëg ñu xam ne ñun ak joom ñoo bokk dëkk bi te li ñu taxoon a jóg mooy sa taataan baatu askan wi ngir taxawal dëkk bi ci pencum ndaw réew mi ngir lépp loo xamante ni lu leen di jariñ la te war a jóge ci état ñu mën ko xame fii yóbbu ko foofa wala jële ko foofu indi ko fii loolu moo doon suñu yitte moo doon suñu bëgg-bëgg gëm nañu nag ni engagement ak détermination bi nga xamante ni moo nekkoon ci ñun moo nekk ci ñoom rek kon bu ñu toogee ba tey yàlla suñu boroom yëkkati ci coobareem jox leen ko dañu leen di ñaanal yàlla suñu borom defal leen wér defal leen fekke defal leen tal sàmm leen te yiir leen te ñi nga xamante ni ñoo ko doon wutandoo ak ñoom tey dañoo war a jël seen jëmm ak jëmmi ñi ko am boole leen muy benn ñu xam ne dëkk bi lañ ko amal muy département de Mbacké mais aussi Sénégal lañ ko amal parce que niñ ko amee ci gox bi la ko ñeneen amee ci beneen gox loolu ñu ngi leen ci encouragé di leen ci félicité di leen soññ aussi ñu bàyyi xel bu baax ñoom fi ñu jot a jaar ba li ñu dégg ba tax ñu am li ñu am ñu bàyyiwaat yitte yi doomu aadama yooyu xel mën cee def seen yitte. di ñaan yàlla suñu borom mu defal leen tawféex ci màndaa bu fi mos a jaar nit du ci wut lu jariñ saw askan wa nga sàkk woon seeni kàddu ba ñu jox la ko na seen mandat bi nekk ci màndaa yi dàq ci kuy teewal sa dëkk te ñun lañuy teewal ndax ñun ci dëkk bi lañ dëkk te ñun ak ñoom ñoo ko bokk kon ñu ngi leen di ñaanal tawféex di leen ñaanal sutura di wëlbitu wëlbatiku tamit nag di santaat encore une fois waa Benno Bokk Yaakaar di leen sant di leen gërëm am na nag loo xamante ni day nekk ci biirum njaboot ñu mën koo waxtaanee ak ñu mën koo bañ a waxtaane ci sunu biir ak bi élection yi tàmbalee ba bi muy sontu ñun ñi nga xamante yàlla dogaloon na ñu nekkoon responsable war a mën a xam liy xew ca lañ mën a xam nag la ñuy wax wala yëg liy xew ca lañ mën a yëg ku si néew am na lu ñu tiire ay leçon ci biir ànd bi nga xamante ni moo nekkoon suñu diggante ak képp ko xam ne responsable nga nekk ci dëkk bi la ñu ci tiire nag muy loo xamante ni xamal nañ ko suñu bopp tiire ko muy lu palpable nag loo xamante ni tey dañ naan boo doon seet dara ba loxo nekk ci poos da nga naan loxo dugg na ci poos ñu xam ko dajale nañ ko ay benn benn yi mu doon tënk ko ci aw kayit ñun ñëpp dafa am ku kuñ doon jàppale ñun ñëpp dafa am kuñ doon taxawle ci liggéey bi mu yoral réew mi ngir sunu borom dolli ko ci ay tawféex mais ngir sunu borom may ko mu gën a mën a yeggale liggéeyam te loolu aussi ñu ngi ciy félicité soxna Aminata Touré gannaaw bu ñu ci président félicité président félicité félicité ci soxna Aminata Touré mi nga xam ne moo jiite woon liste bi ren ñëpp def ci loo xamante ni yéene la ànd ak pas-pas li ñu ci tiire nag muy ay leçon yoo xamante nii mbooloo mu ne dana am lu ca mbooloo mu ne ku ne ak na ngay doxee te xam ko ci incha allah tënk nañ ko ci benn kayit ñu ñëpp dañoo dajale woon di jàppale benn coalition coalition bi am kilifa yoo xamante ni kilifa yu bari ñoo dajale seen kàddu ak seen ay pas-pas ak seen bëgg-bëgg jébbal ko son excellence président la Macky Sall li ñu ci jëlee nag te war ko ko jox li ñu ci jëlee te war ko ko jébbal danañ ko ko jébbal moom aussi dana tiire ay leçons mais dana tiire la mu bëgg a def ci la ñu koy jébbal te xam ko te war ko ko jébbal nag ndax dañoo bokkoon ñun ñëpp di saytu liggéey boo xam ne bu buñ ko dajalee ñun dañoo rendre compte. te incha allah loolu jàpp naa ne duñu ko manqué benn yoon danañ ko def la ca des mooy ni élection yi demee ak ni mu doxee kenn ku ci nekkit sañ nga man sañ naa ne comme niñ koy waxee nit sañ na ne suñu bopp day metti waaye loolu wóorut li wér te wóor mooy sa bopp bi metti da nga naan sama bopp day metti donc man Galas Kaltoum may jëlaat suma engagement jël suma jàpp jël suma téye di ko feddali suma diggante ak président Macky Sall di ko xamal ne lépp loo xamante ni lu mu nekk la maa nga ko ci déglu lépp loo xamante ni lu ma ca war la ma war ko ko defal wala ma war ko caa taxawal muy ci biir dëkk bi ak ci biir réew mi jox naa ko ci loxo di ko ci tàllal loxo mais aussi di ko ñaanal di renouveler su ma ànd ak moom mais di renouveler su ma diggante ak moom di renouveler sunu li nu yàlla boole muy bokk réew mi te yàlla dogal mooy njiitu réew mi di sant aussi ñi nga xamante ni mooy presse bi ak fu presse pressoo parce que presse yaatu na kuy bind kuy filmer kuy photo lu mu mën a doon ba ci communication communicateur traditionnel yi bi ñu nekkee ci élection yi gis nañ yëg ne kenn ku ci nekk fi nga ci féete da nga jël yëfi yi muy sa yit yitey bopp nga taxaw ci def ci loo mën ci guddi ci bëccëg ci suba ci ngoon ba agsi suñu ndaw gi kon cantuk presse bi am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yam kon dañuy yamaleen di foofu sunu hmm? commune waaw di di yamale foofu sunu kàddu ci di ko tëjee ci dolli cant rek ndax waxtu wu ne dañ koy faral di wax élection bu ñëwee ci département de Mbacké dafay mel ni commune yi nga xamante ni maire yi ñoo fa nekk ñoom dafa am loo xam ab denc ñoom ñoo ko moomal seen bopp ñoom yàlla dogal kenn ku ci nekk fa nga nekk ay élection jàll na bu yàggul nga sonn ci daj lu ci nekk ba téye sa commune bi élection yi ñëwee kenn ku ci nekkit taxawaat nga ci sa commune ba dolli ca la nga xamante ni amoon nga ko loo xamante ni feeñal na sa yéene ci fi ñu nekk wax naa ko nee naa monsieur le maire Mbaye bu tayif ni ñuy sant maire yëpp lañ koy sant ci biir maire yi waaye nag nit ki li nga séq ak moom ak lim la wan nga gis ko sañ ngaa yëkkati sa kàddu ndax da koo séqoon ak moom seereel suñu cant seereel suñu diggante ak moom ndax suñu rakk la suñu xarit la tukku jàmbaare la ci liñ doon def feeñal na ci yéeneem guddi ak ngoon suba ak bëccëg bu ma waxee monsieur le maire Mbaye Tine nag laawaale naa ci maire yëpp ci turu maire ab Lahad Ka yi nekk ci département bi góor ak jigéen mag ak ndaw mbokk yi nga xamante nag yàlla dogal na tey man buñ may tudd ci kër sëriñ bi di leen tudd mooy ñu am lu ñu bokk yu góor ak yu jigéen li tàmbalee ci askanu maaram laay wax amul kenn ko xamante ni kii man bi lii ñëwee nekk ab yan tege ci suñu kaw yëguma ne jël nga yan bi yanul ko sa bopp ñi ko mënta toog seen kër tey ñaan ña nga ca muy suñuy kilifa yu góor yi ak kilifa yu jigéen yi ñi nga xamante ni samay nattaangoo bokk jamono lañ jàpp naa ne ku am sa bët di gis da nga gis ne galas kalto mii dox di dem de ay bokkam rek lay àndal loola nag man amel naa leen ci ak cant amel naa leen ci ngërëm goo xamante am na fu mu tàmbalee waaye amul fu yem waaye di ko seere àdduna bi yëpp sant naa leen gërëm naa leen dañuy seere taxawaayu Serigne fàllu Mbacké bu Serigne Mbacké soxna loo di président conseil départemental ak Serigne Cheikh Mbacke bu Serigne Bara Doli seen taxawaay ak seen engagement ak Abdoulaye professeur Abdoulaye Niane docteur Abdoulaye ñaan ci taxawaay yu rafet yi nga xamante nii ñëw nañ taxaw ko ci élection yi jàll ci ànd ko ak Benno Bokk Yaakaar muy taxawaay yoo xamante ni mënuñoo mënuñu ko dimensionné ba àgg ci ni dayoo ñoom bi ñu ko jox buñ doon mesure sax di seen bos mu bi ñu ko jox ñun joxuñu ko. ngir taxawaay bu rafet bu dee li ngay euh, laajte question bu njëkk bi mooy malgré mooy xam nga aussi euh, waxal nga ko sa bopp nit ñi ñun campagne la ñu mën pour seeti nit ñi ak wax ñoom ñu génn xam nga nit it nag bu fekkente ni fii 400 personnes ñoo fi war a wote li ñu naan ñeenti téeméeri doomu aadama tey nga dem ba ñeenti téeméeri wote si wuñ ñaar téeméer ñoo wote wala téeméer ak nangam kon xam nga bu taux bi wàññi ko wàññikuwul ci ki nga xamante ni moo jógoon di wuti ki doon jóg di wuti woon bu sañoon lépp lu nekk ci fichier bi kooku day génn ñëw lan moo tax nag nit ñi génnuñu loolu wax dëgg yàlla dana jafe ci man ma xamal ko sama bopp mën naa indi ne fi ñu toll la parce que nawet la ñu nekk mën naa indi ne xëy na sax am na ci nit xam ne bindu woon nañ ci li si dëkk ci département bi te tey naweti nañ wala ñu nekk ci yeneen yitte yoo xamante ni permettre wu leen ñu mën a ñëw wàññeeku pour indiwaat taux bi ñu amoon ci local bi wala mu ëpp bu dee ci côté boobu moom mën naa koo layal ci wet googu ndax nit ki moom ki daan ñëw bu ñëwul li ko téye doo ko xam ndax ñun bu ñu sañoon en tant que kuy wut te ay nit di la may ku ku ñëwoon lu ko ëpp day ñëwaat am maa nag jëmmi li jot a ñëw matul la ñëwoon bu njëkk kooku mu wax dëgg yàlla damay day xaw a gàtt ci man ma xam xam waa xam nga bu dee mbirum xaalis li ma la wax la parti bi nga xam ne mooy jóge ci kaw di di li jëm si ci ay leader am moo nekk ci Sénégal parti bi dafa structuré ci dafa tënku ci ay charte tënku ci ay ponk yoo xam ne li jëm si Touba parti bi xam na ko li jëm Ndakaaru li jëm Thiès la jëm feneen bu dee daal li li soxaloon Touba te jëm si fi te doon jógee ci parti bi di jaar ci suma loxo indi nañ ko fi jox nañ ko ñi ñu ko war a jox kuñ ci joxit bind nga këyit wane ne jo joxe nga jote nga ci sama loxo ndax bu ma ko indee dama koy jox comité électoral bi ak trésorier wu parti bi ñoom ñaar ñoo may defal décharge ma téye décharge ñoom it noonu lañ koy toppee di ko jox zone yi di ko jox commune euh, dafa am loo xamante ni boo defee boo càmbaree lo liggéey buñ la dénk ànd ko ak ay nit bi ñu dajaloo kenn ku ci nekk joxe sa xalaat ak li nga gis ba ñu càmbar ko tëj ko ci en bloc kooku day baax ci kam jëm moom mooy mooy mën a tontu ci lii lañ ma joxoon ak lii nii la demee. en tout cas daal jël nañ ay notes. ci li xew ci élection yi bi ñu ko jëlee def nañ ko bataaxel tënk nañ ko jox nañ danañ ko jox incha allah kilifa gi bu dee mbirum fonds yi li ma la wax rek ñu koy joxe xam nañ ni mu tollu lañ ca waxoon ne nañ ko def te mu jaar ci man noonu laa ko defee ñi ma ko joxi topp naa ko ba xam ne noonu lañ ko defee kon loolu féete na boor bu dee nag weñ wu daanu ci soow baram bi laa ko génneeg bi amu ci seppi sànni rek a fi nekk mooy jël nañ not danañ jàllale xam nga mooy li ma la wax ñun bi ñuy jóg di wuti bu ñu xamoon ne bu ñuy jaaree fii dañuy daal di am kon duñ jóg di sonn dañuy dem rek jël kii euh, kiy jóg di wuti bëgg am boo ko mais ñun dañu gëm ne bi ñu demee li li am mooy wuti nañ ko ñeneen am nañ ko dañ ciy sant yàlla mais di ñaanal ñi ko am ba xam nga nag euh, dama ne la nit kiy jóg di wuti bëgg rek la def yàlla nag suñu borom mooy doon ñu dañu assumer ne yàlla mooy joxe xam nga. kii joxe li mu la jox ngay jël li ñu yàlla jox mooy fas yéene féetewoo ñaanal ñi ko yor te am ko ñu am ndam. li nga wax nee naa la fii bi may sant responsable buy sonnal coalition bi mu bokk sëriñ Modou Bara Doli dafa bokk APR bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar moom ni mu xam wala mu xalaat ko ni lay jàppe wala ni lay dul jàppe kooku moom xam nga moom lay loolu moom lay ñeel mais man li ma gis te yëg ko ba fan yu mujj yi dañu ngi daje ci terrain bi moom bu ma gisul man gis naa ko gis naa ne mi mi ngi def lu ñuy may ndam loolu laa ko mën a seedeel mënu ma koo seedeel leneen bu fekkee nag leneen lu muy wax la man wax dëgg yàlla xamuma ci moom lu ma ko war a waxal lu weesu suma mbokk la ma xarit la suma am di jàmm te gëm naa ne yéene na Macky Sall ndam mais yéene na coalition bi ndam bu dee soxna Khady Diop bi ngay tudd yàlla dogal na man fii lañ ma présenté xari Diop mu ne ma wax ma fa mu nekkoon ak kañ la ñëw nee na ma ñi doon jàppale Samuel Sarr di jàppale président ñoo ko dugal ci parti bi ñëw na fi wax ma boppam dem na ba moom mënatut a nekk ak ñooñu ci lim ma wax te ay seere la am bi ma ko waxee ne ma dafa bëgg ma jàppale ko pour ñu ànd liggéey yàlla dogal na li ñuy wax muy ay koppar li ma ci yor lam ca mënoon a jot akus néew yëkkati naa ko ko jaarale ko ci ay loxo ñu jox ko Khady Diop turam ma nga ci liste jot na ci bari na wala jot na ci bariwul moom am na lu fi jógee ñëw ci moom xam nga mbirum mbirum coalition dafa yaatu Euh, ak jur sax boo leen di yor di leen jofal te tegal leen xont da nga gis ku ku dem ba jub xont bi gisul ñax jàdd di ko for kooko la muy def moo ko xam mais li am solo mooy ki ki ñu fa bàyyi moom muy wattu jur gi war leen a jofal li muy yittewoo mooy ku jàddit mu fexe ba nga duggaat ba mu jofal la rek bu ñu ko jofalee nag bàyyee ko ki nga xam ne moom lañ ko war a jëbal moom laa la wax ne la li ñu jël nga xamante ni man seetlu naa ko en tant que tête de liste bokk ci parti bi wala bokk ci coalition bi seetlu ko ñu def ko muy ay lu ñu noté dajale ko boole ko danañ ko jébbal ki ñu ko war a jébbal loolu mbirum kilifa gi yore coalition bi lay doon ñun amuñu ci décision lu wees xam gis joxe. loolu xam nga ki ki nga xamante ni mooy njiitu coalition bi moo tànnoon ay nitam ngir ñu jàppale ko nit ñëpp la tànn pour man bi ma defee tête ñëpp la tànn. parce que képp ku fi responsable xam naa la xàmmee nga ma bi ñu fi tànnee Matar Diop it ñëpp la tànn xam lan moo fi nekk nga xam ne tànn nañ nit yow lañ tànn ngeen ànd liggéey bi rek ki doon tànn nag bu tolloo ci war a tànnaat wala mu war a defaat leen kooku moom mooy xool la mu bëgg a def mu def ko c'est